Nous sommes à près de 200 km de la capitale sénégalaise, dans la commune de Diokoul-Djaoring, département de Kébémer, région de Louga. Bienvenue à l'Ampoule. L'Ampoule est un village de près de 300 habitants créé le 29 mai 1972. La majorité de sa population est d'ethnie Peul et Wolof. L'agriculture, la pêche et le tourisme, voilà les trois activités qui jusque-là ont permis aux populations de l'Ampoule d'être à l'abri de toute inquiétude. Admirez donc ce beau paysage. Nous ne sommes pas en Mauritanie ni au encore moins au Sahara, mais bien au Sénégal. Et oui, un désert, au pays de la Teranga, ça existe. Le seul d'ailleurs, et c'est le désert de l'Ampoule. Depuis 98, la touriste yi commencé di ñëw Lompoul ndax dafa am désert boo xamante ne boo xoolee désert de Lompoul mooy désert bi gën a rëy ci Sénégal bu fekkee sax am na beneen désert waaw mooy benn désert boo xamante ne yore na euh, euh, taar boo nga xamante ne wala réyaay boo xam ne moo fii rek nga koy fekke ci Lompoul. Il s'étale sur 18 kilomètres avec des dunes qui peuvent atteindre une hauteur de 40 à 50 mètres. Le sable est très fin et la végétation quasiment inexistante. Le désert de Lompoul et l'une des destinations incontournables pour les adeptes de l'immersion où on leur propose différentes formes d'excursion. En plus de la pêche et de l'agriculture, le tourisme rapportait beaucoup aux villageois. L'Ampoule Village, c'était un milieu touristique, très attrayant même. À l'heure actuelle là où la saison touristique euh, a commencé, vous deviez y trouver beaucoup de touristes et beaucoup de vendeurs même sur place. Mais vous faites le constat, il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas là parce que le désert est en train d'être exploité. Et le désert était le lieu des oasis et des, des campements. Donc quand on a déménagé tout, tout, tout, cette zone-là, euh, vraiment, donc il y a des impacts. Face à la dégradation du secteur de la pêche et une agriculture qui peine à être modernisée, les populations de Lompoul ont toujours su compter sur le tourisme pour se tirer d'affaires. Hélas, ce trésor naturel est sur le point de disparaître au profit de l'expansion de l'exploitation minière du zircon, un projet de l'État qui n'est pas sans conséquences chez les populations de l'Ampoule. La réduction considérable des surfaces agricoles, ça c'est un problème majeur. Il y a d'autres problèmes comme les impacts négatifs euh, sur le plan touristique, les problèmes sanitaires, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de, de routes non goudronnées communément qu'on appelle les rang-rang là, qui sont partout. Et ça, euh, vous voyez que donc ça augmente la poussière. Des bâtiments fissurés par le bruit des engins, des populations assaillies par la poussière, obligées de renouer avec les masques, comme à l'époque de la pandémie de Covid-19. problème bu nekk am na ci kër gi mënatuñu fóot mënatuñu noy mënatuñu nelaw heure boo yeewoo yaa ngi soj heure boo yeewoo yaa ngi feebar la duñu la sax xool amul benn responsable homme d'État boo xam ne contrôler askan bi ni mu dëkkee baax na wala baaxul impact bi leen impacté def na def na ci yéen li war wala defuñu ni si yeen lu war te defuñu ci ñun li war dañooy exploité rek ñu dem seen yoon jël li nga xam ne bi moom lañ soxla si dëkk da rek dem seen yoon mais quant à dëkkuwaay bi nga xam ne bi moom la nit ñi dëkk baaxatul voilà les conséquences

au niveau du plan Sénégal émergent, au quatrième rang de financement qui finance l'État du, Sénégal. Nous avons euh, récemment écouté M. Ibrahim Diop, qui est le chef du département de réinstallation et développement communautaire, dire à travers une radio de, de la place que la GSO en 2021-2022 a versé à euh, l'État du, Sénégal 121 milliards. Donc ici, à lompoul sur mer le poste de santé manque de, de tout. Le poste de santé n'a pas de... Euh, de matériel médical. Et ça, nous déplorons, nous déplorons cette situation. Avec le tourisme, les jeunes de l'Ampoule avaient tout ce dont ils avaient besoin chez eux et n'étaient point tentés par le phénomène de l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, cette exploitation du zircon a bien changé la donne. nit ki bu fekkente ne yow fa nga doon yëngu yow euh, loolu jóge na fi amatoo leneen jàngoo beneen métier ndax tey mën naa wax ne fii zone euh, béykat la. te mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi fii di yëngu ci tourisme bi mën na wax ni amuñu tool donc bu fi loolu jógee ñoom fan la ñuy jëm waaw fan la ñuy jëm jël gaal bi moo fii sës Sur les sept campements qui longeaient le désert, tous les cinq ont décampé. Les deux présents sur les lieux sont aussi sur le point de mettre définitivement un terme à leurs activités. On n'aura pas le choix justement. Si on avait le choix, on aurait dû rester. Si nous quittons justement, le tourisme va prendre un sacré coup. Pour ceux qui quittent Dakar ou qui quittent directement l'aéroport pour partir à Saint-Louis, ils font nécessairement escale à, à Lompoul, ils passent la nuit au désert, ensuite ils continuent sur Saint-Louis. Au-delà, il y a plusieurs activités que, que, nous menons, par exemple le Festival du Sahel, dont nous abritons le site les années, qui accueille presque 1000 personnes ou 1500 personnes en 48 heures. Les rares jeunes présents dans le village se tournent les pouces à longueur de journée aux côtés des femmes dont les activités économiques liées au tourisme heure bii da doon fekk tey place boo dugg borom mu ngi jël lu mot deux cent mille deux cent cinquante mu sarse ko bagage ba place bi fees dell waaye tey tey fii ñu toll nii ñeme wu ñoo def dara te dara waralu ko lu dul zircon bi. tey jii tey jii tourisme bu fi jógee daañu sonn lool suñuy njaboot dina sonn ndax suñu njaboot mën nañoo dem ba def lu dul noonu. mën nañoo dem di dund yeneen jëfin yoo xamante ne mësuñu koo def mën nañoo dem dugg ci gaal yi loolu lépp am na ci. ñun jigéenu village su Lompoul moom tiit nañu lool danga doon gis benn jigéen mu xëy benn jour wàcce ñaar fukki junni wala fanweeri junni ci palaasam. ñun liñ ci gën a métti ñun suñu palaas yi wax nañoo ñëpp ba des ñun waaw waxuñu yéen buñ fi jóge buñ jëlee seen palaas yi daañu leen jox lii daañu leen defal ni amul. Pour remplacer le désert naturel occupé au profit de l'exploitation du zircon, l'association Grande Côte Opération, GCO, chargée de l'exploitation du zircon, a créé un désert artificiel. Ce, pour remplacer le désert naturel afin de préserver l'exploitation touristique. Sauf que pour installer ce désert fait par l'homme, on a fait sauter des terres qui servaient d'agriculture. En échange de leurs terres, les paysans perçoivent une indemnisation de la part de la GCO, une méthode d'indemnisation décriée par l'Association pour la défense des zones de Niaï. Quand, quand, quand, on exploite une mine, il y a euh, des lois qui sont mises en vigueur qu'on doit respecter. Mais ici, on a noté que la GCO utilise le, euh, comment le barème de, de, de, comment, de compensation de 1974. Et ce, ce, là vraiment, ce n'est rien. C'est presque des, des, hommes dérisoires qu'on qu dédommage euh, aux, populations. Alors que la Banque mondiale exige que quand, quand, quand il s'agit de, de déplacement ou bien de réhabilitation, il, faut, il, faut, il faudrait que, que, que comment dire, le citoyen euh, euh, trouve vraiment euh, un confort mieux que le convoi de départ. Mais malheureusement, dans, dans, dans, dans la compensation au niveau des, des, des, des surfaces agricoles, ce n'est presque rien. Parce qu'on dit que dans, 2 hectares ou bien dans 1 hectare, on peut dédommager à, à hauteur de 1 500 3 millions. Alors que ici, les populations, dans une campagne, elles gagnent près de, de, de 10 millions, voire 16 millions comme ça. Donc... Apparemment, ces personnes indemnisées sont plus chanceuses, car il y a des agriculteurs à qui on a tout simplement retiré le matériel sans explication, alors qu'ils n'ont perçu aucune indemnité. yéen à part agriculture bi yéen yéen lan ngeen doon def. sàmm yi defuñu dara ñun moom roose rek day ñandi ndax lii day ñandi moom lañ ko sàmm yi amuñu ak amuñu tool yi rek ñu léegi tey jii li ñu leen tere liggéey ni lan ngeen ah, ñu tere liggéey kay banque si nga jaar. on disait que la CCO n'exploite que les dunes de sable mais aujourd'hui on a vu que ça ne limite pas seulement sur les dunes de sable, mais même les champs, les cuvettes maraîchères euh, qui étaient euh, les greniers sont en train d'être exploités, ce qui réduit considérablement donc les surfaces qu'on devait cultiver. Le chef du village de Lompoul, quant à lui, reçoit au quotidien des plantes à tous les niveaux et constate avec impuissance la souffrance de sa population. jafe-jafe yi li ci ëpp mooy diggante béykat yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo doon liggéey ci tourisme bi ñooy ñoo ëpp li ñu fi indi li fi toogagum ak ñoom jafe-jafe yooyu ñoom ñoo fi commencé di ñëw. di ñëw di fekk seen tool yi di leen naan fii ngeen nekk waru leen fee nekk ndax fii permis de restauration la ah loolu te nit ñi wax dëgg yàlla loolu xaw na leen a jaaxal. beneen bi ci topp mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jaay seen aar yi ak ñi nga xamante ne sàmmkat yi nga xamante ne ñoo doon jaay seen jur yi ci campement yi bés bu fi campement yi jógee ñoom it jafe-jafe la ci ñoom te lompul wax dëgg yàlla mosuñoo xalaat jël gaal di tukki waaye léegi commencé nañ koo def ndax suñu njaboot ñu ngi dem ndax amatuñu la nga xamante ne xëy na yaakaar ci tool yi ndax bu fekkente ne tool yi dañuy ñëw Euh, suñu mbokk foore yi ñëw naan ñu da nekk ci biir permis de restauration te ñun dunduñu woon loolu dañ nekkoon depuis au 1971 lañ fi def pépinière suñu maam yeeg ñoo nekkoon doon sàmm garab yi ñu bàyyi leen ci biir bu ñëwee dañ laan dañ leen di porteeseel seen tool yi ñu ñoom it ñuy xoolaale garab yi ba garab yooyu màgg tey jii ba raw ñu xëy ñu ne leen da ngeen fiy génn loolu jafe-jafe la Sous peu, la disparition du désert de l'ampoule sera effective. L'exploitation du zircon aura eu raison de ce trésor naturel, laissant place à un désert fabriqué par l'homme. Oui l'exploitation du zircon, à l'appauvrissement de la population. Tel le cri du de la population de Lompoul, une population qui vivait depuis belle lurette dans cette zone. 18 km de désert, le seul d'ailleurs que le Sénégal. C'est un lieu qui est sur le point de disparaître au profit de l'exploitation euh, du zircon. Les populations euh, qui sont actuellement dans le désarroi ne comptent que euh, viennent en aide.